xibaar yi. bon café ñoo leen di revue de presse. El Hadj Ahmed Aïdara. bismillah. wàllum immigration clandestine gi day bar sabal jàq ja waaw am na lees waxul de am na lu ca waxul de am na ay lëndëm lëndëm termine yéene kaa ne accident wu gaal gi nga xam ne nag maanaam moo doon yóbbu gone yi day guddig dimanche jàpp kon altine jële ah te ñu ne daa accidenté waaw ñi nga xam ne maanaam ñoom ñoo cëri ci day wax nañ de gaaña la gaal ga la ca dee ëpp na kon ñeen fukk ci ay doomu aadama allahu akbar plus de quarante morts allahu tey nag laa a gaalu sénégal boobu di soldaar yi mbëkk allahu akbar dama ne kanam lañ ñu lu tolloo fanweer ak juróom-ñeent ci ay doomu aadama kon ñoo ca rëcc ñëpp yuuxu ku ci nekk di jéem a rawale sa lu tolloo ñeent fukki ci ay doomu aadama laa wax ñu may daal kon réer te ñooñee nag leer ba leer mooy dañoo dee innaahi wa innaa ilayhi raaji'uun ne jàpp naa ne ñooñee danoo dee parce que ca gën a bëri kon mënuñu ndox nag laa la wax yéen kaa gi ne moom président Macky Sall day wàllum bar sak gi lée waaw daal dina koy tiital de lool ndaxte ne doomu aadama yi ñoom ñoo dee wala réer ci biir ndox mi lée kenn mënu leen a lim lii tax nag ba président Macky Sall kon ne nañ leen boolee doole yii te xeex ak lii waa taxaw Sénégal day bu Khalifa Sall ci tribune yéen kaay waaw nee maanaam ñoom ñoo dee woon balaa lii waaw lu ñi dang xam lu gi nga xam ni kon kilifay jiite kon dang xam lu nañu ko moo waral musiba mbaaba kumbe bi lée uh-huh. waa taxaw Sénégal ne waaw yorin goo xam ne dëkk boo xam ne ay bàkk rek ay slogan yi dul jeex ci lu jëm ci wàllum xëy gone ay milliards yi yoo xam la gouvernement bi ba léegi ni lée mënuñoo ne la ndaw yi di dunde nii ah ayaa bi mang kurus boog sobi li ne yow xoolal ma gaal gi xam ne ci doonu nguur gële la waaw kon ci biir ndox mi la mu doon yóbbu ci ay doomu aadama toll na ci ñaari téeméer ci ay gone allahu akbar te ndar géej la téere laa la wax waa gendarmerie day teg nañu loxo lu tolloo juróom-ñett ci ay doomu aadama ña des daal dañ ne may daal di ko ndaw ca yàlla yéene kaa gi ne yëkkati nag ay daan lal ko ci ndoddug ñi nga xam ne ñooy yóbbu waate noo ne waaw Mansour Faye ak nee na Fatma Tatal waaw dañ ne nañ leen ko criminaliser rek maar di taali ñii daal ñun ci jàppati nañ la ate comme ko rey nit waaye ayal a roba Aly Ngouille Ndiaye ak maître Assane day waaw daal dina ñëw ci banti nag Mansour Faye mi lée libération yéene kaay ne en tout day ña ngay ca ndox ma ba léegi ni lée Les Échos yéene kaay xoolal ma xale yi lée juróom-ñeenti fan la ñu nekkoon ci biir ndox mi doon dem Europe waaw dañoo mujj sonn daal di mujj teeree ji kon ca ndar géegale dañoo dem ba amatuñ luñ lekk nag laa wax ah lii ko wax ne maanaam ñoom ñooy day nee na luy njig Macky Sall mooy njaak ah. njiital Pastef les patriotes day moom Ousmane Sonko nee na jën amatul ci réew mi la napp gi yàqu na dëgg la ñàkkum liggéey bi di taux de chômage bi la ëpp na Barça gi rek day mandargaal di nguuru Macky Sall gi lee liggéeyuñ fi tus dara defuñu ko fi laa la wax Ousmane Sonko yemu ca dee déedéet parce que waa nga réew kenn da mënul yor ci ay kàcc ay mensonge ay naxaate parce que Sall ci boppam ci 2012 moo ne woon dana cent jàpp sept cent cinquante mille emploi dana ko wut man Ousmane Sonko nag damaa jàpp ne sept cent cinquante mille day ci ay emploi waaw su ko wutaloon ay nit kon xale yii duñu jël géej laa la wax daam joo ministre emploi ci évidence yéene ah nee na gouvernement bi leen fi def daal ci lu jëm nag ci wàllu emploi des jeunes amul benn gouvernement bu ko fi def laa la wax ah ministre daam joo wax de tribune yéene kaay leen atte comme ni ñuy atte kon koy rëy maanaam ñoom ñooy caxat-caxatee alalu askan wi ne ñooñu nag lan lañ leen war def looloo jëra laaj yow suñu alalu pétrole bi lee ak bi nga xam ne mënoon naa soppi réew mi ne suñu Sénégal def ko ajana laataa pétrole ba gaz bay génn day wanteer nañ ko caxat-caxatee ginnaaw ay duuma yoo xam ne nag mi ngi jógee ci Ousmane Sonko Thierno Alassane Sall ak keneen ak keneen waaw Alexandre Jules Sèye moo génn barki dee boo njaay léegi si ko yéegeen ñu ko mu Sénégal yi nee ñoom ñoo sàcc lu tolloo juróom benn junni ci ay milliards six allahu akbar sénégalais bu nekk quatre cent mille quatre-vingt-quatorze milliards trente-six milliards ndaata ko noo soxi seen ti ci duñu te jamono joojee Macron day dugg na ni ruba ak réew Dakar Times génnuk rapport moo génn moo tiital waa France ba tiital àla seen jiitum réew ma la wax évidence yéene kaay ngi lay si ko ñu ngi yekk lu mel ni xeme ki damatul xadim ku nekk ca buur yu France nañ ko gër léegi ko yéene kaay ne Souleymane Teliko day waaw tey lañ ko fa séenee déglu dee ah termine yéene kaay ne Cheikh Omar An day mujj naa gagné diggante ma Pape Alé Niang mar di dal évidence yéene kaay ne Cheikh Omar An kay waaw gagné na moo di ñaa ak Pape Alé Niang ñetti weeru yàlla yuñ dul tëdd joxe amande ngeen fukki junni ba noppi nag jox ministre Cheikh Omar An fukki million eh way Samba le tee mooy yéene kaay ne Moustapha daanu na dee mar meeru ñu ngi day daal dina Aliou Ndoye ak sëriñam bi nga xam ne dane ko doo dugg kaso mukk ñoom ñaar ñaar mujj dañoo dugg kaso direct news de waaye Air Sénégal moom est-ce am na njiit ah ñaari roppalaan dee la yore woon léegi nag benn rek la yor te gis nga ca aéroport Ziguinchor ne sumaara de daal musiba am le quotidien yéene kaa ne liggéeyu teer de léegi mu jeex parce que maître Oumar Youm day nee na décembre dinañu joxe kon otoraay le témoin yéene kaa ne parti socialiste de bu doon nit rëy waaw fukki section ak juróom-ñaar union départementale yu ñoro yooyee waaw fukki ak ñett yëpp Serigne Mbaye Thiam la ñu àndal critique yéene kaay ne Macky Sall day ma ngay wër nag ab dauphin bu fi jógee kan moo koy remplacer ci yaakaar gu tas de waaw waaw parce que na troisième mandat bi moom Macky Sall xam ko caa remplacer laa wax du ministre du directeur généraux du président institution dara dañu fi nekk naan dañoo bëgg yëpp daanaka ay xuusmaa ñaab lañ <laughs> Macky Sall daal xaw ma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 accident boobeek ñi ci mucc itam dinañ ciy dellu soit accident bi itam boo leen ko déggee muy euh, ñoo ñooñuy def immigration clandestine muy dem gu teguwul ci yoon tey nëbbatu tax ñu sóobu ci géej gi. Euh, la mu mën a indi ci ay njombe des na ci dellu soit itam ci kàddu yi seede ñu ko dund ba noppi en tout cas fu nekk kàdda nga fay jibee jamono ji tembe ndax dañoo mel na ñu jaaxle. ndax mënuñu criminaliser sax acte boobee question bu ñu samp la ci kanamu maître Abdoulaye Tine xam-xamam màcc jëm ci wàll yoon joxe na ci xalaatam ak li ci yoon wax dinañ ci dellu soit loolee ci biir xibaar yi euh, dinañ wax itam euh, kenn ci avocat yu Souleymane Teliko yi la mu jàpp mooy audition wu client bi doonul loo xamante ni bii euh, dafay war a continuer rek audience su meex bu Dakar di Khalifa Sall ngir rek li mu joxe xalaatam loolee itam des na ci waxtaanee laataa ñu ñëw ci xibaar sport di ci ànd ak Baye Ma Anta Mbuub yéen kaay yi Alaaji Ahmed Aydara asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu doore xibaar yi ak euh, beneen gaal gu yàpp lu toll ci ñaari téeméeri xale ñu doon def euh, immigration clandestine ñoo nekkoon ci gaal googe gaal ga daal la ji keroog ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weer bi muy démb ay 15 heures la ñu ko seen ca géeju Saint-Louis ca kaw a kaw ca fa tolloog Phoenix et Rebeuss li ñu jotagul ci ay xibaar jëlee ko ci waa Seneweb nee nañu gendarme yi daal dinañuy euh, teg loxo ñooñee boobu la embarcation. nga xam ni lañ joxe ci xibaar ne nañu mbuur la ñu bàyyeekoo euh, ba fukki fan ak juróom-ñett xanaa kon def nañu lu ëpp <laughs> semaine ci géej gi te mënu ñoo xam fu ñuy jëm responsable euh, gaal ga nag ñoom euh, ka ko doon dawal maanaam ñi jiite woon gaal ga doon ko dawal dañoo dem ba xamatuñu fu ñu jëm xamatuñu teg tegtal waaye yoon wi ñuy jaar ngir mën a egg îles yi ci Espagne wala ñu jaawle ko xëy na ndar donte seeni làmp lamp nag bokkul <laughs> lamp Espagne gi Sénégal ci wàllu boobu en tout cas def nañu ci géej gi lu toll ci juróom-ñeenti fan yoo xamante ni bii daanaka euh, sonn nañu lool nag sonn nañu lool ginnaaw bi nag lañu ni sax faf nag comme solution amul te xàmmeetuñu yoonu Espagne seen nañuy làmp donte xam nañ ni ndar la nañ teer ngir mën a sauver seen bopp. waaye ba ñu teeree ñu bëri ci ñoom dañoo daw am na ci nag juróom-ñett ñoo xamante ni jàpp nañu leen ni ki itam passager bi daal di nay daw ubbi nañ ci enquête nag jamono ji ngir mën a teg loxo ci ñeneen ñi bokkoon ca gaal ga ak euh, ka leen doon yóbbu euh, kàddu seede kenn koo xam ni rescapé la muy rescapé boo ko déggee muy ku mucc ku àndoon ak ay nit te ñooña dee yow nga mucc foofee ci diwaanu Saint-Louis Ibrahima Fall la tudd ca gaal ga ma ngay def ay seede ci limu ñi nga xam ni faatu nañu ca gaal ga te mu wóor ko lool. nee na lu néew néew mat nañu fanweer ñu dee nañ ko déglu. marine dafa toj quoi ñaari marine ñoo toj. garda civil bi. marine marine Sénégal bi. ñun ñu retourné na. ñu arrêté ñun na teer ñun dañuy dañuy léegi bato Sénégal di dab di dab suñu kanam. temps muy dab suñu kanam. moom it troisième fois si lañ ñëw daw suñu kaw. gaal bi këpp si la gawaal gi yëpp gawaal yëpp dee. a ah dégg nga amagul si information la boobu léegi ñu ngi téye si métti na lool ah gars yi boo bëggee xam nu mu demee avant ñu ñuy sauvé aussi gardien civil boobu njëkk commencé sauvé marine Sénégal moom yéex na sauvé ay sept personnes sax du ëllëg sauvé moom genn wàll gi yëpp gardien civil moo leen sauvé ah trois cent mille da nga xam ñaata ñaar ñaar ñaar at laa ko dajale te ne moo gën fii foofu da ngay am weer yëpp na da cent mille cinquante mille sax nga am ko fii weer mooy loolu ah taxul yoon de instant yi de yoon amu fi moom yoon amu fi ndax loolu li jënti ko tëgg gaal gi moo leen gën a soxal ko accident yi ni mu demee li gën di ku ku tëgg gaal gi moo leen gën a soxal nit ñi dee accident weeg yooyu noonu nga noonu la dëkk bi amul yoon dañu leen a dogaale ñetti yoon muy gaalu marine bi ñu bañ a taxaw ci lañu ñu soog a ñëw dal ci seen kaw gaal bu daal di këpp la ci nekkoon mat na juróom-ñetti fukki nit te fanweer ak juróom-ñeent lañ ci sove marine bi juróom-ñaar lañ ci sauvé ñi ci des gaalu espagnol gi ñoo leen sauvé kon juróom-ñett fukk nga génn ci fanweer ak juróom-ñeent daanaka kon xam ngeen ni la ci dee kon bëri na moom moomee waa ji doon wax ni Ibrahima faal la tudd bokk ci ñu nekkoon ci gaal googe muy accident bi ngeen doon dégg ñu ko doon wax démb ci gaal googe mbëkkanteek gaalu marine bu Sénégal euh, ci na ma ko waxee ci ay xibaar kon 39 ñoo mucc ci 80 personnes yi nekkoon ci gaal gi kon ñeent fukk ak benn kon euh, disparaître nañu ci biir ndox ma. mu nekk lu tiis nag lu metti cinq cent mille la fayoon moom moomee xanaa kon ñi mu àndaloon bu dee juróom-ñett fukk fay nañu kon euh, ku nekk cinq cent mille boo ko xaymaa kon xanaa day nekk euh, ñeen fukki million ci franc CFA loolee li tax itam nag jële fi immigration dana xaw a jafe ndax ñiy defar gaal yi itam la ci ñoom ndax dajale <laughs> am gaal moom taxul la mën a dajale ñeen fukki million taf taf ngir yóbbu ay nit foofee ci Espagne loolee mooy évolution bi am ci wàllu xibaaru accident bi amoon démb kon bari na ay ndaw yu ci faatu donte dénombre dénombre guñu ko bàyyeekoo ci wàllu officiel gi waaye que nekkoon ci gaal galam wax ci ay xibaar kon doy na motoon nañu juróom-ñett fukk fanweeri juróom-ñeent sauvé kon euh, biir na ko ni ñeent fukk ak benn euh, ña nga ca ndox ma rescapé accident pirogue ci biir géej gi it nag ak circonstances yi nga xamante ni bii mën na koo indi. am na euh, kon accident boobee ci niñ ko waxee sànq ni kon faw ñu situer nag responsabilité yi ndax bu ñu waxee accident bu kilifa yi muy officiel gi nangu ñoo wax nombre ñi faatu te ñu nekkoon ca gaal ga ñoom wax nombre ba ca nekkoon ak nombre bi sauvé da yomb ñu xayma kon ñi faatu est-ce que kon du jaadu bu ñu sukkandikoo ci kàddu seede bii kii nekkoon ca gaal ga ngir yoon man ci àddu Younoussa Baldé Ibrahima Fall am na 42 ans père de famille bu juróomi bant la mu ngi dëkk Saint-Louis bokk na ci rescapé bateau bu accident ci géej gi. bi ñu dawee six kilomètres parce que mu gën gaaw mu ni gaal gi amoon na lu gàtt gàtt juróom ñetti fukki nit ba leen mbëkkee fan fanweeri nit ak juróom-ñeenti rek la ñu sowee. mu mu dépassé avancé jóge na le tourné waat wóor na ñëw mbëkk bopp gaal bi xaar léegi nag gaal bi sooxu ñu ñu arrière mu seetaan ñun ñu commencé di yuuxu di yuuxu dee nañu Papa Abdoulaye Guèye vingt quatre ans la am célibataire la Saint-Louis la fekkee baax trois cent mille la versé woon ngir bokk ci voyage bi. mais est-ce que génne nañu koor yi. kii nanguwul joxe tuuram waaye it versé woon na trois cent mille ngir bokk ci voyage bi mu ngi ñaawlu taxawaayu marine bu Sénégal. fan yi ñu nekk nag mbëkk mi tar na lool ndaw ñu bëri ñàkk seeni bakkan ci géej gi. Euh, mu nekk xibaar bu doy waar lool muy rescapé yooyu nekk ci gaal gi suux ni ki bërki biik euh, li mu ña ca faatu kon bari na lool dégg ngeen message yu kooke nga xam ne bokk na ci ñi mucc nee na way juri ku gisul sa ku gisul sa doom jàppal ni faatu na ci mbëkk mi ci bato bi nga xam ni mbëkkoon na leen ñoom seen gaal gi doon dem Espagne ñu nekkoon ca juróom-ñett fukk fanweer ak juróom-ñeent ñoo mucc ñeent fukk ak benn ya dañoo dee. ay fan a ngi nii ñu koy wax naan est-ce que duñu criminaliser li nga xam mooy immigration irrégulière bari na ay nit yoo xam joxe nañ ci seen xalaat mais maître Abdoulaye Tine jàpp na ni nekkatul débat moom professeur ci wàllu droit pénal international la la mu jàpp mooy code pénal déjà daal am lu mu prévoir ci ay sanctions yoo xamante ni bii teg nañu ko ci kaw koo xam ni euh, da dangay da ngay def euh, immigration ci anam goo xam ne jaaduwul euh, ak lu jëm itam ci wàllu traite de personne ak trafic bi ñuy def ci nit ñi ñu teewlu ko. nekkul mbirum criminalisation wala leneen parce que boo xoolee ñu code pénal déjà prévoir na ko dafa ne migration maanaam kuy jéem a jóge ci réew bi nga bàyyeeku fi wala nga jaar fi comme transit a dem ci dëkk euh, ñi nga xam ne ñooy organiser loolu wala ñu koy jéem yoon teg na seen ndodd ay daan yi nga xam ne mën ñu dem ci juróomi at kaso ba ci fukki atu kaso ci yoon lu weesu juróomi at comme sanction maanaam ñu ngi ci criminalisation ba pare mën nañ teg seen kaw aussi si amende bi nga xam ne mat na un million à wax ji jaru ko parce que li ñu jéem woote déjà yoon daf ko lal ba pat eh loolu moom leer na kon aajatul wax ji ñu yóbbu ci assemblée nationale rek ay luwaak nangam yoon waajal na ko ba noppi euh, ku nekk ca yoon woowee ma mënees na laa daan juróom jàpp fukki ati ma mënees na laa daan junni ba un million ñu bëri sax nag dañuy jaawale ñaar muy migration euh, irrégulière ak euh, trafic illicite euh, de migrants ak itam traite de personnes ak yeneen ci xeetu expression yu ku nekk dafa am fooy toll ci situation ñu lay woowa ne waaye yooyu yëpp nag dafa desee leex ci bopp Sénégal yi Fatou Lambe Diop lu nekk noo tudd ci histoire Sénégal mu am nag ñetti vague yoo xam ne ci wàllu immigration irrégulière ba ci njëkk nekk ca jamonoy bekkoor ja ba ca des nekk ci atum 2000 ak barsax barsak beneen ba mujj ba doon lu jëm ci wàllu immigration bi nga xam ne ña ngi koy jaarale ci yoon wi boobee de sax la ñu gën a wax lu jëm ci wàllu trafic illicite de migrants trafic boobu la ñu koy condamné ak nag article 3 bu protocole ci wàllu euh, trafic illicite des migrants ci wàllu jaww ji suuf si wala géej gi ñu toftal ci euh, convention nationale Nations Unies bu xeex lu jëm ci wàllu criminalisation transnationale organisée 2000 tey jii bu ñuy wax immigration irrégulière trafic boobu moo tax ñu gën a wax trafic boobu le day wundu de mbirum koppar mi ngi si wala matériel wuteex loolu lu jëm ci wàllu traite des personnes bi nga xam te ne nag nit ki nga xam ne moom mooy victime bi nekk na koo xam ne dañ koy recruter par la force wala ñu nax ko daal di koy transporter dëkkal ko ngir rek daal di koy exploiter jamono ji li fii ci Sénégal di Barsax wala Barsax du ab traite waaye trafic illicite des migrants. Fatou ñu ngi lay euh, jaajëfal. leneen ci wàllu xibaar ginnaaw dossier bi migration boobee nga xam ni moo lëmbe senegal jamono jii te nag euh, wax dëgg yàlla war nañ ko waxtaanee ndax ku ci tiitul ku nekk nag euh, dëgg-dëgg amook seetlu ci senegal fi mu toll. ñu wax ci actualité judiciaire rek euh, président union des magistrats du Sénégal Souleymane Téliko tey jii lañu koy war a déglu ci cour suprême euh, ñu koy déglu nag doon rapporteur bi nga xam ne moom la ñuy désigné ak euh, ñi muy àndal kon moom moomee dossier bi sababoo ci ministère de la justice ngir ñu topp ko ci wàllu boobe kon président bu cour suprême ak ñi muy àndal koy déglu président cour d'appel bu Thiès moom itam des na ko déglu kon conseil discipline bi moo koy déglu ki koy diriger doon premier président bu cour suprême bu Dakar leeral yàq Fatmata Diop. tey lay taxaw ci kanamu conseil de discipline bile bu 11h jotee ci suba moom moo di juge Souleymane Teliko audition bi reporté nañ ko ñaari yoon njiital union des magistrats du Sénégal cour suprême dina ko déglu ci la nga xamante ne moom lañ koy toppee bokk na ci nag kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko ne rek li la di àq ak yelleefu ancien maire bu Dakar di Khalifa Ababacar Sall dañ ko salfaañi ci procès ba woon ci fàttali nag ginnaaw igage terminé liggéeyam daa jébbal rapport bi ministre bi ñu dénk wàllu yoon di maître Malick Sall mi ko jébbal it ñi le di conseil de discipline bi mi nga xamante ne nag moom mi daa rek yàkkam ci ci mbirub jiital UMS te it nekk président bu cour d'appel bu Thiès ci fàttali nag conseil boobu le sax jotoon na dos ci ay bés yu jiitu rapport bu igage boo xamante ne jëriñ bi ñu dénk wàllu yoon moo ko ko joxoon ci wàllub guerre bi nga xamante ne ñu ngi ci doon mel ni nag tey ji s taxaw nañ nee nañ déterminé wu mobilisé wu ngir nag jàkkaarloog ñoom rawatina soutenir kile di seen président. ngi lay jaajëfal Fatmata Diop kenn ci avocat en joxe na ci xalaatam muy avocat yi nga xam ne ñooy défendre Souleymane Téliko maître Ousseynou Fall lii la xalaat ci dossier ba ndax nee na day mel ni prolongement wu dossier xalifa Sall. su ñu demul dépendre constitué wu pour euh, pour tëli ko dafa mel ni que euh, pour ñun laccage la maanaam que xalifa ñu ngi doon dépendre gëmuñu woon suñu bopp gëmuñu woon nekk euh, xalifa Sall dañ ko tuumaal que dañu piétiner droit fondamental yu xalifa Sall suñu devoir c'est une obligation pour nous maa pour ñu dem jàppale ko parce que prolongement bi la te te jeexagul yàlla mooy mooy wane boppam te dañu gën di wan ni boppam yenn yàlla may ñu ñu fekk ko mun ko tal ko mais xalifa Sall bi comme procès yenn procès Karim Wade bi ñi nga xam ne nguuru Macky Sall dafay ñëw di salfaane droit fondamental nit yi ah dina dina leer bu soobee yàlla. ndax Sénégal am na opposition bonne question bu seetee dëkk bi ak li fi ne ci coronavirus inondation immigration clandestine bakkanu ndaw ñi di rot ak yeneen ci jëf-jëfumaa tey gulalu ci politis ci politiciens yi sans compter détournement yi ak wax yu leerul yeeg ngaññante yi loole lépp doo dégg kenn ki ñu ñu jàpp ne ñooy ponkali opposition bi ci Sénégal kenn réagir question bi mooy ndax politique ba ñu nekk dañ ciy jiital njëriñal Sénégalais yi wala seen ñoom seen turi bopp rek lañ ci jiital Fatou Abdou Ndiaye. opposition bi ndax dañu nekk ci perte daanaka question la bu ñu mën a laaj li ko waral mooy dégguñu leen ci ay question yu bari yoo xam ne sax dafa intéressé askan wi bokk na ci wàllug mbënn mi bokk na ci immigration clandestine ba ci sax mbirum xëyu ndaw yi ak lu ñeel wàllug ndox ba ci li nga xam ne moo jëm ci licence de pêche yi anam gënu joxe ay question yoo xamante ne dafay soxal réewu Sénégal waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo ci war a yëy yàbbi duñu leen ci dégg benn yoon mën nañ caa tudd ku ci mel ne Idrissa Seck jël ñaar ci élection présidentielle bi moom nag mu mel ne ku nekk ci ab silence boo xam ne kenn mënu ko tudd ñu ni mel nit la ñu nemmeeku ci secrétaire général bu PDS di maître Abdoulaye Wade mën nañ caa tuddit ku ci mel ne Malick Gakou Issa Sall Mamadou Diop Decroix ak Hadjibou Soumaré Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall liste bi jeexagul ndax bëri nañu ñoom ñooñu ñëpp nag nekk daanaka ci pattiral gu jéggi dayoo lan la mën a wax ci Khalifa Sall mi nga xam ne keroog ba mu génnee ci prison ba tey yeyul yàbb ci benn arène politique bi euh, jox place ñi nga xam ne ñooy mouvement citoyen yi lu ci mel ne frappe France dégage ñoo lank ak nitu dëgg ñoom ñoo ñu daanaka la ñuy gis ci ay manifestation ñuy wax ay question yoo xam ne ñeel na askan wi ak seen i jàmbat Fatou du Ndiaye maa ngi lay jaajëfal mouvement d'humeur ca université aline Diop bu mbay dafa bari lool ay étudiants yoo xam ne li ñu bëgg mooy ñu satisfaire seen ay kàddu yi jàmbat dañoo mujjoon sax yàq assemblée générale bi ñu doon def foofee ca université ba te it nag nee nañu dara dootu fa jàkk bu fekkee wuy wuñ seen ay kàddu yu jàmbat Abdoulaye Diagne. jékki-jékki mel ne lu ko yëgoo génn gàllu ay brassard rouge di fésal seen naqar ci jamono ji nga xam ne assemblée générale ñi ngi ko doon amal ci daara ju kawe ji di Alioune Diop bu Bambey Abdou Jonas Korea yor kàddu ka bés bi. tey dañoo am assemblée universitaire autorité yëpp daanaka ñu ngi fii moo tax ñu préféré def ko ci biir université bi ñoom ñu gis ko. ne fa laa budd ñu jàppandil leen seen jàmbat yi lee. achèvement réseau campus 2 bi nga xam ne depuis plus de cinq mënul pare beneen bi mooy engagement ministre bi dina construire amphithéâtre de six cent places beneen bi mooy la question de l'ouverture des masters en développement durable ak yeneen i jàmbaat yuñ si toftal ndongo yi nekk ci daara ju kawe ji di Aline Diop bu Bambey ne dañoo am mbetteel boo gisee étudiant ak seen pancarte nga xam ne nous sommes déterminés pour la cause de l'étudiant loolu moo tax fan yi ñu génn pour wan ni opinion nationale bi que ni université Aline Diop de Bambey kilifay université bi ñooy njaak ndax boobaak léegi woowuñu leen benn yoon ci jotaay jotaay waxtaan na Abdoulaye Diagne Bambey Zik FM. Abdoulaye Diagne maa ngi lay jaajëfal leneen ci wàllu xibaar euh, dafa am ay ay ay conseils municipaux yoo xam dañu leen dàqoon euh, dañu leen rajo woon ci mairie ba nekk ci Jidda Caaroy kaw ndax ne nañu dañ doon absenté lu baree bari ñu attaqué dogal ba ci kanam cour suprême jël nañu dogal nag daal di annulé kon dogalu dàq ba kon ñoom ñoo am dëgg ci kaw commune ba euh, bu ñu dellu siwaatee ci wàllu boobee nag. Euh, am na ay cooxe yoo xam ne am na ci ba tax maire ba joxe ci xalaatam euh, Cheikh Dieng nañ ko nañ ko déglu. Euh, cour suprême jox nañu dëgg parce que depuis le 18 mai ñun porté woon nañ ko plainte au niveau de la cour administrative bu Cour suprême ñu di ko wax ni ko rek Cour suprême def na liggéeyam incha allahu rabbi ñi ngi koy xaar parce que ay conseil lañ ba tey donc saa bu ñu convoqué. dafa am droit obligation mu convoqué ñu ñu ñëw teew. Euh, maire li nga xam ne moom la mbëwatoon conseil yi mu ciblé mun a bañ a représenté waat ci élection yi di ñëw en deux mille vingt et un échec bi nga xam ni def na ko ci yorin gi mu yor commune bu Djeddah Thiaroye Kaw mënees na koo jaar ci dàq conseil yi ak yàq seen der ak mettre leen en mal avec les populations. Euh, ki doon wax noonu kon mi ngi tudd docteur Oulimata Gueye xam ngeen ni ñu ngi waaj amal benn forum de l'immobilier li nga xam mooy investissement lu toll ci fanweer ak ñaar ci ay agence immobilier yu dajaloo ci benn GIE nga xam ni lañ ci jublu mooy rek gën a defaraat boobu le secteur ñu lëkkatloo ak waa SAPCO daal di nañu amal benn atelier bu am solo ngir nit ñi mën a am dëkkuwaay te genn njublang du ci laxas lépp doon lu leer président GIE boobee Babacar Lam la tudd nañ ko déglu ci micro Papa Dieye. toog ceeg WhatsApp ku Sénégal doon waxtaan ci euh, yoon yi ñuy jël mën koo tëral pour mën a am benn euh, xew-xew bu ñuy def bu yaatu boo xam ne ci sali ñëpp pour wàllu investisseurs yi ñu créer benn forum moom forum de l'immobilier et de l'investissement mu mën a nekk at bu nekk tey ci waxtaan boobu woolu nañ ci ñi nga xam ne mu jëm ci immobilier ñu jël benn notaire mu wax ñu ci yan na ñuy jaar ngir njuumte yeeg dog-dog yi am mu mën a wàññeeku at leneen ci wàllu fiscalité ñu woo ay experts yoo xam ne matt nañ ci loolu ñoom ñu wax ci ak tamit volet assurance parce que mënuñu wax immobilier sans ñu wax assurance secteur bi jafe-jafe yi mu am mooy double emploi bi nga xam ne tey am ci wàllu mairie at ñi nga xam ne dañoo ubbi cabinet immobilier amuñu këy njublangi rek coow li coow li yépp buñ ci dindee njublang gi lépp leer UNESCO euh, Kano ca Kolda dañu investir ci wàllu développement jubluwaay bi mooy fexee rek euh, taxawu ndaw ñi jigéen ñi surtout itam tawat yi dem ci l'hôpital yi ñu mën a jàppale l'hôpital yi ci wàllu boobee am na benn ndaje bu am solo boo xam ni ndajum set setal la yeneen xibaar Pape Kadiali Badji dañu dana ci dellu soit ak ñun doon na itam loo xam ne kilifa yi dañ ko rafetlu lool muy kilifa yi l'hôpital ba ñu dem ci Touba daal di nañuy ñoom réagir ginnaaw déclaration yu bu bon bu ñaaw bi bàyyeekoo ci booy bi jiite France ñu koy wax Macron kenn du nangu daal benn yoon ñuy ŋàññi rasulillahi mu bu ñu sukkandikoo structure bi tudd xidmatul xid euh, non xidaamul xadim nekk foofee ci Touba dañu condamné boole ci itam sàkku nag ci ñu boycotté li nga xam ne mooy bépp produit bu bàyyeekoo foofee ca ca France ndax nag euh, boy bi euh, mën naa font na def lu ko neex bu ko neexee takk meer gi yëpp waaye nag di di di fowee suñu yeneen bi daal moom xel mënu koo nangu ñaar fukki simili moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. México. Baye Mante Mboup la ñuy àndal ci xibaaru sport salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. éliminatoire CAN 2022. fédération sénégalaise de football euh, ubbi nay buntam de ngir sóobu ci wàccaay bi. waaw ubbi nay buntam ngir sóobu ci wàccaay gi nga xam ne waroon dox nag ci diggante Sénégal ak Jotnos yu Guinée Bissau loolu nag jàpp ñetteel ak ñeenteelu bëccëg ci éliminatoire CAN Cameroun deux mille vingt deux mu nekk jàngante yu am solo nag ci fédération bi ndax ndaxte Sénégal mun na see jaar rek ngir nag euh, am tikkeem bu koy may mu bokk ci le compétition ñu ànd ci ak jàngatu kii di Soxna Fall. àggale éliminatoire kan ba li ñu dëgmal ñu ngi ci wàccaay gi CAF jot na programme yi a ak quatrième journée bi ci novembre bi Sénégal mi wax a daje ñaari yoon Guinée Bissau fukki fan ak benn ca Lat Dior ak fukki fan ak juróom ci Guinée Bissau fédération sénégalaise de football ci jamono ji mi ngi ci wàccaay bi ngir yooyee jongante bile yoon ñuy xamal ni Aliou Cissé sélectionneur national bi dina amal conférence de presse bu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot bu ne noppee yi nga xam ne woo na leen ñu ngi leen di xaar ci diggante juróom-ñetti fan ba fukki fan ci weeru novembre te ci benn hôtel bu nekk ci Diamniadio la ñuy dëkk ci jamono ji nag ñu nekk ci pandémie moo tax test yi tam bokk na ci li ñuy amal le 10 ci veillu premier match bi ak le 13 laataa ñuy dem foofee ci Guinée Bissau suñu jongante bi nag ak Guinée Bissau ay arbitre gabonais ñoo koy rek amal fédération sénégalaise de football bëgg tam liggéey ak ANPS mooy kuréel gi ëmb taskatu xibaar yi ci wàllu tàggat yaram ngir lu jëm ci accréditation yi mu toll ci 80 ci ab lim benn vol spécial nag wax nañu ne am nañu ko ngir dem ci Guinée Bissau ñu war dem fukki fan ak ñeent ci weeru novembre ci suba si ñibbisiwaat bu nu noppee ci match bi nga xam ne jàpp nañu ko fukki fan ak juróom ci novembre ba tey jile soxna Fall ñu wax nag ci équipe nationale U20 yi ñoom ni ki démb nag seen jongante ak xarit doon dox seen diggante ak ñii di waa Maroc foofu ci Rabat dañ cee ñàkk nag ñetti bal ci euh, benn euh, équipe nationale bu Sénégal nag ñuy fàttali ni moom mi la tamit mu ngi ci yi lu jëm ci wàllum éliminatoire CAN U20 bi nga xam ne fa fas nañ ko amal foofu ci euh, Mauritanie ci atum 2021 di fàttali nag lu jëm ci wàllum élimination élimination yi sax fii ci réew mi lañ ko amee niki ñaar fukki fan ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum novembre foofu ci stade euh, bu la jox bu Thiès gonek Malick Dabo yi nag niki tey lañ fas yéene jël leen si waat fii ci Ndakaaru ngir nag wóyal lu jëm seen wàllum préparation. wax ci wàllu football ak assemblée générale euh, élect euh, électif bu ligue professionnelle football bu Sénégal. waaw boobu la assemblée générale nag dinañ ko fas yéene jàpp niki ñaar fukki fan ci weerum novembre gannaaw nag ba lii di conseil d'administration bi nag ñoom amalee ab si lañ nag fas yéene jàpp date bi nga xam ne si lañ dinañ ci amal lu jëm ci wàllum assemblée générale élective bi li ki démb nag la ko bile élargir bu ligue sénégalaise bu football xamleel ñoom ñu ne sax si seen euh, waxtaan guñ doon amal ñoom nag am na yenn décision yoo xam ne revenir nañ ci bu baax a baax bokk na ci lu jëm ci wàllum euh, ndoxtalu championnat bu Sénégal waaye nag ba fii ñoom ñu leen ñuy xaar nag réunion bi nga xam ne dina tukkee euh, jëmale ci comité comité exécutif bu fédération sénégalaise bu football waaye ba fii nag ñoom ñoo jàpp ne waxtu lu jëm nag ci ndoxtalu championnat bi nekki ci weerum janvier gu ñu jëm lañ ko fas yéene tàmbali. ñu wax ci basket bool ak éliminatoire euh, afro basket ci wàllu góor ñi 2021 suñu entraîneur bi tey ci ngoon lay fësal listam. waaw Boniface Ndong ni ki tey nag bu 17h30 jotee dina jàkkaarloog taskati xibaar yi ngir nag dikkaat euh, ci nag joueurs yi nga xam ne fas yéene leen présélectionné ngir nag ñu bokk ci boobu la éliminatoire jàppale nag fenêtre jëm ci wàllum FIBA bi ci weeru novembre gi nag lañ koy amal ni ñaar fukki fan nak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom juróom-ñeent sax ci euh, Kigali lañ ko ko amale ci Rwanda di fàttali nekk Sénégal lu jëm ci wàllum éliminateur afrobasket masculin euh, ci euh, groupe B bi la nekk ànd ci ak ñi di waa Angola Mozambique ak euh, Kenya di fàttali tamit ni tey ci ngoon ligue bu ndakaaru bu basketball ñoom dinañ amal nag tey remise attestation 89 stagiaires yi nga xam ne ñoom lañ doon tàggat jëm ci initiation initiateur bi nga xam ne promotion bi dem mbalo lañ ko tuddee nekk suñu naataango moom mi la nag mu wuyu suñu borom nekkoon photographe jàppale nag boobu la cérémonie tey tey jële maire bu Ndakaaru di Assome Wardini moo ko fas yéene teewe ànd ci ak président fédération bu basketball ak président bu ANPS di Abdoulaye Thiam Euh, fu ñuy jeexalee maam bitim réew. waaw bitim réew la ñuy jeexalee ak lu jëm ci ñaareelu bëccëg ligue européenne des champions tey jile jongante yu am solo fas na ci am 17h ci euh, groupe H bi nag 17h55 ba sax saxeer bu ñoom Demba Ba moo fas yéene dalal Paris Saint-Germain bu Idrissa ci diggante Manchester United la doon ak équipe bi di Leipzig ci groupe bi nag 17h55 Krasnodar mooy dalal euh, Chelsea bu ñoom Edouard Mendy 20h nag dina ci laale ak ren bu Alfred Gomis bi nga xam ne bokk na ci groupe bi waaye nag kii di Mbaye Hamidou Dieng ba tey bokkagul ci groupe bu euh, Rennes bi ci groupe F bi nag euh, bu vingt heures jotee FC Bruges bu ñoom Krépin Diatta may dalal ñii di waa Lazio Dortmund ak Zenit Saint-Pétersbourg la doon groupe H bi nag vingt Juventus dina dalal ñii di waa FC Barcelone Ferencváros ak ñii di waa Dinamo bu Kiev la doon di fàttali nag ni démb ci ñaareelu bëccëg bi sax jàppal na nag groupe A bi Lokomotiv bu Moscou moom Bayern moo ko fekk daan ko ñaari bal ci benn Atlético ci ñaar groupe B bi nag bu Donetsk ak Inter dañoo tembo kenn dugul sa dara Manchester Gladbach ak Real bu Madrid deux buts partout la ñu def ci groupe C bi. Porto moom dafa daan Olympiakos ñaari bal ci dara Olympique bu Marseille moom lajj ci kanamu Manchester City ñetti bal ci dara ci groupe D bi lañ koy jeexee Liverpool bu ñoom Sadio Mané ñoom ñoo daan équipe bi di